nee na la ca des nag mooy dénkaane yi rek nee na ñoo ñi nga xam ne mooy seen jëwrin ci yoon wi nee na la mu daan digle ba tey moom lay euh, wéy di digle nee na weesuwul lislaam nee na na ngeen fonk seen diine fonk seeni wayjur fonk seeni dëkkandoo ñi ngeen maaseel ngeen def leen ni seen bopp ñi leen mag ngeen jox leen ab cër nee na naka jekk moom mii de lool rek lay digle nee na gis na ni macha allah yéen a ngi ci nee na lépp loo xam ni xew na ci dëkk bi ci diine kenn du leen si jiitu Sëriñ Tuubaa nag lool rek la fi nekkee woon diine kon amul parparloo kon ku nekk rek fa la yàlla féetale loola mooy sab cër kon nañu joxante cër loolu mooy lislaam ndax sëriñ Tuuba wérde yëpp daanaka ko joxe kon jullit yëpp benn lañ kon nañ ko rafetal bu baax a baax nee na dàngu gi nag rafetal nañ ko bu baax kon yàlla na daj ci mbooleem gox yëpp barkeb yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na sëriñ bi mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp نينا خلام سدنا بو باخ